Euh, jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, di am kontante ak mbégte janowaat ak yéen comme niñ koy defee saa su ne ngeen gis nag kii nekk kilifa boo xamante ne jotoon na fee ñëw muy euh, sant yàlla moom nag tur bi mu dàkkantalee boppam saa su jaam jàqee wala mu nekk ci bànneex wala mu nekk ci tiis saa su ne rek suñu xel mi day dem ci suñu borom subhaanahu wa mu gën ko santaat tey nag dafa amoon émission bu ñu jotoon jàll ñu waxtaan ci lu baree bari mu ñëwaat tey euh, ngir ñu gën a waxtaanaat sëñ bi maa lay nuyu nga nuyu mbokk internet yi su ko defee euh, ñu weel waxtaan alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamina wa sallallahu ala sayyidina muhammad allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima maa ngi nuyu Sénégal di nuyu monde entier ñi ci biir ak ñi ci biti képp ku ñuy seetaan ak képp képp kuy suivre suñu émission maa ngi lay nuyu di la ziar di wax asalaamualeykum wa rahmatullah bismillah sëñ bi temps yi gis nga actualité bi nga xamante ne xew na ci réew mi Euh, lëmbe àdduna bi yëpp euh, muy diggante coow bi nga xamante ni dox na ci diggante Ousmane Sonko ak soxna soosu di Nansar Adji Sarr euh, nga gis coow loo xamante ni am na ci ba bërki démb kër Ousmane Sonko takk der yi ak militant wu Sonko yi laale nañ ba deret turu na fa ñu baree bari gaañu nañ ci am nañ ci ay blessé yu métti métti gis ngeen suñu way takk der bi nga xamante ni moom it gaañu na ci ban gis-gis nga ci am ak lan moo waral coow loolu. waaw cooloo li ko waral lenn la rek euh, muy Macky si ñi ko wër xam nga euh, ay nit booy jëflanteeg ñoom ci li ngay jëflanteeg ñoom danga koy respecté bul ne bul leen xeeb bu leen tuutal bu leen doye dal li nga wax ak ñoom rek jëfe ko ba mu mat yaa ngi dégg tey ji nga dajale ay nit di leen liggéeyloo hmm? tey am na ñoo xamante seen wax wala ñu jëf rek musiba la si ñoom keroog bi ñuy jugee fii lañ euh, defoon suñ émission wax dañ fi jógee rek ñaari fan rek si la cooli am xam lu waral lool parce que dafa am si waa kër Macky Sall ñoo xamante ni dañ ñu waroon a jox suñu xaalis joxuñu si la ñu mobiliser wu ñun ñi nga xamante ni ñoo daan liggéeyal président bi foofu noonu ci pale bi bokkul pale bi ci Ndakaaru pale boobu fii la nekk parce que boo ko waxee dafa bëri ay waxkat. pale bi fan la nekk. pale baa ngi fii tubaab jalaaw après tubaab jalaaw fale pale boobu nekk. kan moom pale boobu. pale boobu comme président képp ku falu rek foofu ngay nekk foofu ngay noppaloo foofu ngay defee say affaire foofu ngay defaree say bagage foofu nag bi maanaam da ngay jëli say sëriñ jaw fu nekk lay nit di jóge ñii ay Indo ñii ay chocoto ñi ay Mali ñi ay Niger fa la ñuy jógee bi maanaam foofu ñi fa nekkoon ñu ay làkkat laaj man rek maa leen maa rax te foofu du ne melokaan bi moo fay teew foofu beneen melokaan moo fay teew ñu leen di liggéeyal di leen liggéey ñoom ñu dem nag ba yëg seen bopp waroon ñu jox suñu alal joxuñu ko ñu nekk seen yëfi bopp ñu ne nag ñu ne ñu dem si biñ demee nag ñu ne ñu jël Sonko en charge ñoo ko jël en charge di ko liggéeyal yaa ngi dégg biñ toogee nag wax bi ñu waxee rek si lañ jógee créer problème yi yëpp. dinañ ñëw ci nga jël Sonko jël Sonko en charge di ko liggéeyal mais yow bi ngay liggéeyal président Macky Sall euh, tey kan moo la engagé woon kan moo la jëloon waxtaan ak yow ak ci yan kàddu ngeen waxtaanoon ba tey ngeen commencé di leen liggéeyal. waaw moom si ñu ko wër la. moom xam na ko moom xam na ko moom du wax turam. duma ko wax mais moom mu ngi ñuy seetaan. bi mu parce que moom bu ñuy jël du man kese. maag sama ñeneen moroom ñoo xamante ni ñi ñu ngi jugee ba Indo ñii jugee ba Sokoto ñii jugee ba Mali ñii Togo ñii Niger. ñu ñëpp moo ñu indi ku si nekk mu ne lii lii lañ bëgg ci président lii lii lii ñu ne ko waaw baax na mu dig ñu ku si nekk wax ñu lim ñuy wax ñii terrain ñii oto tegal ñu si xaalis bu bari yaa ngi dégg ñun moment yooyu ñun suñu liggéey si wàllu woowu dañ na laan jëm ci liggéey bi nga ñuy jox ñu liggéey bu ñu ba pare loo ñuy jox nga jox ñu ko. boobu lan ñu ngi ko doon liggéeyal lu jëm ci wàllu président bi moom moo yor loolu. wàllu mystique boobu falu na. mais comme boobu ñu ngi war a jëm si deuxième mandat bii mu toog nii yaa ngi dégg biñ biñ koy liggéeyal si loolu ba pare nag mu war a programme waat troisième mandat nag. ñoom nag ñu dem ba wóolu seen boppu yaakaar ne ñii duñ dara gëmuñ dara léegi nag ñu bàyyi ñu foofu yaa ngi dégg léegi man ak sama moromu sëriñ yooyu ñoom tamit ñoom ñu dem daal ba gis seen bopp ñoom ñu jugee fi dem ku ci nekk ñibbi sa dëkk. yaa ngi dégg man tamit si laa leen woo dañ bokk sa ñun ñoom dañ dem ba boole foofu benn groupe groupe ñu bokk groupe ma woo leen leen ñu ne léegi ma ne leen dañuy taxawal benn président. te xam naa ne su ma waxee rek waa ji moom bu ñu gisee rek dina tiit te dina jéem a def benn scandale si laa defee woon sama émission bi passé wax dama wax rek teguma si ñaari fan rek cooli am mais loolu dara dara dara si Sonko du dara ci Sonko na jàpp na incha allah si kàttanu yàlla 2024 mooy nekk président de la république lii nag bi maanaam day arrière moom Sonko defar yaramam. day arrière defal yaramam ramam, continue. ngi dégg incha allah. muy defare yaramam ci lan. waaw day mom. man masse u yaramam wala. de ñom ñom ku ci bëgg a xam xam nga fi ngay jaar xam nga si ñan ngay jëm xam nga si yoon bi ngay aw ba jot si ñi nga bëgg jot waaw mom bu arrière ba ñew inshallah allah ci katun yàlla dañ ko defar yaramam dañ ko gëna a garantie garanti. te si kàttanu yàlla mooy nekk président. sëñ bi est-ce que da bëgg woo Sonko mu ñëw ci yow euh, comme léegi politiciens yi dañ bu njëkk lañ daan xamee transhumé jóge fii dem léegi sëriñ dañuy def yooyu dañuy jóge ci mag Macky dem ci Sonko. waaw gis na man. Sonko li tax man ma jël ko. woow ma ko nag ngir mu ñëw ma liggéeyal ko force ma ko déedéet mais dafa nekk ndaw te man it aussi ndaw laa dëkk ci réew mi. xam lo xamanteni ni lu bax la ci sama askan tay ji ma xamne ne ni euh bu ñëwee day bax si askan wi tay day defar réew mi motax ma jux ci di ci xar sama tanki tibéy di ci wasu sama àq di ci dem di ko liggéeyal taqaru xaaruma ko ci te woowuma ko ci itam bari na ci tay ji ño xamanteni ni euh, si wa kërëm lañ ñi ngi ñëw ma ngi ak ñom ñu may wax lu mel non mais ma su ma see wax kenn si ñoom na la indil ma Sonko yaa ngi dégg mais euh, dafa nekk ndaw ndawul social amal askan wi njariñ loolu moo tax ma ne kii mën naa ko jël di ko jàppale te xaaruma si moom dara séntu moom moom si moom tamit lenn waaw séntu ma si moom dara woow ma ko tamit ngir mu ñëw si man bokkuma yeneen gars yi nga xam dañuy toog ci média yi naan président lii président la wala diw lii déedéet déedéet yaa ngi dégg man mbirum sëriñ la yaa ngi dégg mbirum sëriñ la ni may ñaanalee Sonko nii keneen tamit bu ñëwoon rek dama lay ñaanal yaa ngi dégg yaa xam nag eh, lu lu yàlla def waaw yow moom yaa xam luy yàlla def mais man bon hmm? képp koo xamante ni ñëw nga ci kàttanu yàlla rek man moom waaw maa ngi fi pour ñëw mais pour le moment moom maa ngi liggéeyal ngir Sonko parce que askan wi la waaw nañ ci bàyyi xel bu baax njëriñal askan wi la waaw. mais kon yéen mere mere bi nga xamante ne ngeen ko euh, maki moo waral kon problème bi am mere mere boobu moo tax ngeen dem ci Sonko mais kon Sonko est-ce que kon loolu bu doon loolu la euh, muraay kira kiranga bi nga xamante defal nañ ko ensemble kon duñ ko dindi kon Sonko duñ ko convoqué bay xalaat ni dina dugg kaso wala du dugg kaso. déggoo xam nga boo tiitee boo wala nga gis dara muy ñëw yow sa bopp yow doo xam fi nga war a taxawee moo dal waa Kër Macky fi mu toll nii jamono bi ñu nii dañoo tiit xamuñu fi ñu taxaw parce que dañ xam ne ñoom buñ leen gañee rek ay daan mën na leen fekk. te man ne bëri na ay jafe tamit yoo xamante ni mën na leen see fekk si. loolu moo waral lii yëpp tey ji coow yi ngay gis nii yëpp du dara waaw coow yi du dara si Sonko da koy gën a defaral mais day tax moom mu arrière mm. defar boppam moom Ousmane Sonko mm. waaw.